bu code électoral parce que article yooyu moo indi pëcc xoox réeroo ba tey ñu mën a xañ Karim Wade ak Khalifa Sall seen droit ñu nekk électeur wala ñu mën a voter ndax article yooyu dafa wax ci muy code électoral dafa wax ci ku ñu condamné temps da ñaat temps at mhm. dootoo mën a nekk électeur ku ñu ne temps dootoo mën a nekk aussi euh, da ngay perdre say mooy li ñuy wax la déchéance de ses mm. droits civils et politiques mm. waaye boo demee ci ñaari yeneen euh, loi muy le code pénal ndax mm. la code de procédure penal waxul li code électoral bi wax mm-hmm. boo demee ci code pénal article 34 dafa wax ne nit ki bu fekkee ne dañ ko condamné te mu war a perdre ay droit wam dafa war a am beneen peine complémentaire bu koy wax comme ñaanama ko yàlla ñu ne Cheikh Oumar Talla ah def na bi jéye ci beneen domaine mu jëm ci wàllum escroquerie wala beneen dom délit juge bi bu ko condamné daan yi mu koy daan day tëdd juróomi at mm-hmm. wala juróom-ñaari at bu fekkee dafa namm mu ñàkk ay droit am daf ci war a dolli moom la wax peine complémentaire uh-huh. que ne ba pare dootul mën a dootul amati droit nekk électeur wala dootul mën a uh-huh. nekk candidat loolu la code pénal wax ci article 34 uh-huh. boo demee ci code de procédure pénale dafa wax ne loolu bu amee greffe bi greffier bi dafa war a def fiche bind ko yónnee ko ki yore fichier électoral maanaam l' autorité administrative ci noonu nga war a perdre sa say droit looloo waral aussi pëcc xoo bu amoon ci bi ñu daanee Karim Wade ba pare ministre de la justice ba ba l'époque mhm. dafa jàng code pénal ak code de procédure pénale bàyyi code électoral mhm. mu ne Karim ñàkkul ay droit am deful articulation bi ak code électoral bi nga xam ne L31 L32 daf ko koy ñàkkloo waaye bu ñu jëmee ci code électoral bi rek ndax autorité administrative kese war na décider may ma may ma may ma est-ce que ndax autorité administrative rek war na décider nit ki def demande d'inscription nga xañ ko ko mhm. juge mhm. moo war a am yelleef mhm. war ko xañ nit loolu la code pénal prévoir. ak code de procédure pénale. moo tax li génnee ci audit bi ñu def ci fichier bi. dafa wax ne nañu xoolaat. ko réformer. article L 31 article L 32. méngale ko ak. code pénal ak code de procédure pénale. muy lu am solo mhm. ci recommandation boobu mu dem de la mu ne même ñi nga xamante ne dañ leen defal grâce présidentielle. Mhm. war nañ leen mën a may ñu retrouver seen droit donc code électoral bi dafa indi ña ñaari pëccuxoo mooy d'abord nit ki condamné nañ ko mhm. juge waxu ko nit ki war a mën a def demande d'inscription parce que li indi confusion bi mooy boo defee demande d'inscription mhm. dinañ ko recevoir recevoir demande d'inscription ak nangu demande d'inscription du benn. c'est deux moo tax bi Karim defee demande d'inscription dañ koy enregistré tey toute personne bu ñëwee di def demande d' dañ koy enregistré mais ndax accepté nañ ko looloo indi woon confusion bi alors moo tax audit bi ne dañu nañu xoolaat code électoral bi article L 31 L 32 méngale ko ak code procédure pénale ak code pénal ba nga xam ne juge rek moo mën a décider nee na Aïcha day ñàkk ay droit am wala du ko ñàkk mm-hmm. mais du rek autorité administrative mooy jël nit ki def inscription mu bañal ko mhm. muy benn ñaareel problème bi mu am mooy buy wax déchéance boobu maanaam nit ki day perdre droit am ci code électoral bi du wax app bi waxul app bi mooy lu problème de la temporalité mhm. xam nga tey wax nañu diw ak diw muy Karim ak xalifa ñàkk nañ seen droit mais ba kañ bu fekkee ne peine bi jeex na waxul ne day jëlaat droit am waxul ne du jëlaat droit am mhm. muy problème mu temporalité ak problème articulation entre les différents codes mhm. beneen bi ci am mooy tey jii dañu am problème sérieux entre les différents fichiers que nous avons au Sénégal mhm. muy fichier bi nga xam ne mooy fichier électoral que ministère de l'intérieur yore ko ak fichier bi nga xam ne mooy nekk fichier bi nekk ministère la justice tey ñi nga xam ne dañu am problème casier judiciaire bu ñu demee sax nañ ko mën a xam ci code élect euh, fichier électoral bi. donc audit bi tamit def na recommandation que mu am articulation entre fichier bi nga xam ne mooy si fichier état civil lu Sénégal. bu ñëraale bu nekkaale ministère de la justice ak fichier électoral. pour dire que donc ci audit bi am na ay point yoo xam ne war nañ ci mën a moo taxoon ñun ñu dénn def conférence de presse ñu ne. Uh-huh. débat bi dootul ay fichier bi viable fiableul fiable na débat bi mooy am nay rëq-rëq yu ñu gis ci code électoral bi ba muy 32 ay anomalie mhm. combat bi nga xam moom lañu ñu war a mëne mooy ñu jubbanti ko parce que même boo xoolee ci ñun article L31 L32 dem nañ ba ne même ki ñu condamné wala ki ñu nekk en détention warul perdre ay droit am tey bu ñu la téyee même en garde vue mm. doo vote ji mm. tey bu ñu la téyee en détention provisoire normalement le principe c'est la présomption d'innocence tëjeguñ la atteeguñ la mais Sénégal bu ñu la téye détention provisoire doo vote ji da ngay perdre ses droits doo vote ji dañ jàpp ne yooyu yëpp lu ñu war a corriger la ci cote électoral ba nga xam nit ki même bu ñu ko téyee atteeguñ ko dañu war a jàpp ne defagul dara war na mën a vote ji dañu war a def kon ci prison yi ay urne comme yenn dëkk yi ni ñu defee ay urne pour que nit ñi di vote ñi nekk ci prison yi parce que ku ñu tëj tamit citoyen nga. d'accord alors est-ce que du foofu la sëñ Saliou peut-être doon waxee tout à l'heure ne que euh, peut-être conférence de presse yi naam d'accord mais est-ce que doy na justement pour que ñu mën a accéder ci yenn réformes yi mu njaay man jàpp naa ne justement le combat fu mu toll nii mooy loolu réforme yooyu la ñu war a xeex parce que bu ñu ko xeexee mu jàll dina parce que ay grâce ay ay ay ay amnistie c'est bien mais amnistie dafa bari piège yu si nekk. parce que du ñu amnistie personne personne nit. on amnistie des faits xam nga xam nga tey wax nañu amnistie Karim Wade nañu amnistie. Euh, Khalifa Sall ñàkk xam la. Mhm. tey bu ñuy amnistier. c'est des faits. ay faits la ñuy euh, amnistier sur une période. Mhm. ci àpp benn. loolu mun nañ ci tëxañ lu bëri. muñ ne mën nañu ne comme ni ko président Ablaye defoon aussi ba am benn parti. bi muy ah, def loi d'amnistie ñoom. la loi Ezzan tey ji bu ñu nee bon nañu amnistier diggante 2012 ba 2019 ça veut dire que ñoom njombe yi am 2012 ba 2019. dañ ko si boole dootul dootul am lu ñu topp ñi ko def. Mhm. moo tax amnistie bi peut-être du solution pour man lii solution bi. Mhm. te du indi après impunité.